mbokk yi ñuy seetaan ci info rew mi ñi ngi leen di nuyu di leen euh, gërëm bu baax di rafetlu seen and ak info rew mi niñ koy défé ak yeen ci seen émission nit ku nité gannaaw émission bi passé xam ngeen ni ñi ngi doon wax ci ilmu nujum ak li nga xam si yépp mo ci aju ci gudigi surtu surtout ñu commencé won ko ci dimanche bi euh, di leen ñaanal rek di leen waxat ni dinañ ñëwaat ci li nga xam si mom modi di fi yam ci talata bi ñi ngi rafetlu bu baaxa baax mbooleem ñi nga xam ni si andi nañ ci seeni commentaire waye tamit dinañ ñëw ci li ma ko waxe won ci lépp loo xam ne si ñeel na loo xam ne si nit ñi war nañ ko xam surtout ci émission nit ku nite dinañ ci ànd ak yéen ñi ngi ñëwaat ci ilmu nujum gannaaw loolu ñu leen jox dinañ ñëwaat ci leneen leeral yi nga xam si moom moo des ci ilmu nujum alaaji Malick Guèye nag moom laay àndal ci émission bi tey dañu am lu ñuy waxtaane alaaji Malick xam naa damay bàyyi nga nuyoo sax ak euh, mbokk yi ñuy seetaan ba pare ñu door a dugg ak yéen tey ci li ñu fas yéene waxtaane mu nekk mbir mu am solo mo xam ci ben nit yalla moko def mu jëm ci walu fajj inshallah mom lañu waxtane ñuy malik nuyul yi ñu doora ñew ak yow ci waxtane assalamu alaykum Alioune ñi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ñaan di leen ñaanal di sàkku ci yeen ñaan di leen baal wàq di leen balaq ah, seen mbokk seen xar El malik Malick Guèye na tey jii ak. Babacar ci émission bi nga xam ne moom la ñuy wax émission nit ku nite te nag Aline ñu jël benn tomb ci benn nitu yàlla bu tedd bu baax di ko wax a Seex Suhaybu radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla yokk ay leer fa mu nekk te taasuñu ci barkeem muy sunu kilifa sunu wasila ndax ab xalifaam bii nga xam ne mom Cheikh Ahmadou Mbacké moom ci laa jokk mhm. ñi ngi koy ñaanal suñu boroom yokk aw fanam Cheikh Ahmadou bu ak njabootu sëriñ soxna bu gépp gépp gep faj nak kenn mënu koo tudd ci Sénégal gi te tuddoo suñu soxna bu ndax dafa am benn téere bu ñuy wax xuratul ayni bu mu bind lamu mu ci wax nit dugg na ci faj ba bàyyi ko te du ko wax kon nag képp koo xam ne yaa ngi sukkandiku ci xam-xam bi nga xam ne moom la wax faj soo ci waxul rek bàyyi nga lu bari kon bu ñu duggee ci jëmm jooju ñëw ci yi nga xamante bi moom la indi nga xam ne xam-xamam la boo xamante bi ci moom lañ ko sukkandikoo di ko waxtaane tey muy xoratul ay ni ñu fas yéene ko leeral askan wi ndax bari na ku dégg xuratul ay ni te xañ na amaana mbindum olof ma wala mbindum nan ko bindee pour mu liir ko comprendre ko day jafe moo tax ñu bëgg indi ba tey ak laabirante rek leeral ko askan wi. am na solo ci seen émission nit ku nite ak alaaji Malick dégg ni mu ko waxee ñëw na ci sax mooy tey dañuy waxtaane ay ni benn téere boo xam si wax na ko Cheikh bu Mbacké moom moo ko def jëmale ko nag ci fas ci faj ah Euh, bu ñu waxee nag faj xam ngeen ni euh, ni ko El Hadj waxee bari na ay mag yoo xam si bind nañ ci waaye ni mu ko waxee tey mënoo wax wàllum faj te doo tudd yi Chouaïbou mu def ci téere bu am solo El Hadj Malick xoratul boobu la ñuy waxtaanee tey euh, téere boobu El Hadj nan la ko Serigne bu defee ci li nga xam si moom moo di ci wàllu faj. waaw xoratul ay ni bi mu ko bindee léegi yàgg na wax dëgg bari nañu ko am sax bari nañu kër yu ko am waaye nag li ci am solo mooy moom tas gi mu bëgg rek na na am ndax suñu soñ bu day jëmm joo xamante bi maanaam nit ak wéram maanaam mu am ak wér lay moo lay teel maanaam nit ku am ak wér daf ko teewoo ndax dañuy xam ne nit bu wéradee jaamu yàlla du ko du ko yomb te suñu soñ bu day koo xamante bi da doon dox ci sunna te doomu aadama yi am nañ ak càggante goo xamante bi maanaam ak wérad yi day yomb dugg ci ñoom moo tax boo yëree ci téeram bi ci xoratu ayni bi da gis ne dafa wax ne bokk ci liy sabab gudd fan moom sëriñ Sooy mooy wax nee na bokk na ci gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaan yàlla saa su ne boole ci itam di sàmm sa wér gu yaram waxi nit yooyu mu wax comme émission bi émission nit ku nite la xoolal wax yi nit kii nga xamante bi mooy sëñ son bu wax yi nit kii mu wax mu ne bokk na ci liy sabab gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaan yàlla saa su ne boole ci itam di sàmm sa wér-gu-yaram sàmm sa wér-gu-yaram ci jaamu yàlla la bokk moom suñ sooy wax moom suñ sooy bu daal di wax ne am na ca docteur yu njëkk ya ku ca dénkoon doomam ne ko boo defee lii ma lay wax doo wopp lu dul woppi dee mu ne ko <clears throat> am na ci docteur yu njëkk yi koo xam ne da caa dénkan doomam na ko soo defee lii ma lay digal doo wopp lu dul woppi dee dee amul kenn ku ko mën a saafara waaye bépp wopp bu dikk rek sunu borom joxe ne nes koy saafara suñu son nag mooy wax mu ne ko lii ma lay wax boo ko defee doo lu dul woppi dee loolu nag moo di lii da ko ne bu lekk mukk te la nga lekkan reesul Alioune xool waxi nit yooyu mu ne bu lekk mukk te li nga lekkan reesul bari na ñoo xamante bi foo leen fekk seen biib naan deng rek deng rek sekkeen yi ak jaween yi <laughs> waaw sama mbokk yooyu sa mbokk yooyu foo leen fekk seen biib deng lay def te boo demee ci docteur yu mag yi dañuy wax ne biir ñetti étape la waaye xoolal suñu sooy ni mu bàyyee xel loolu mu ne ba docteur yi dañuy wax ne dangay lekk lu yam bàyyi xel naan gi bàyyi xel ngelaw li nit boo bàyyee étape étape bu ñett yooyu ci ci lekk doo am wér di yaram mooy lekk ba yëg na yaa ngi waaj a suur nga bàyyi. yëg na yaa ngi waaj a suur paa nga suur. yëg ni yaa ngi waaw xam nga ñaari. yooyu mais mais loolu loolu yéeme na de mais nan ngay yéegee nii eh, fi mu toll nii yaa ngi waaj a suur xam nga boo tiimee lu lu baax moom. surtout aw yàpp yaa ngi si émission nit ku nite mais tamit dama bëgg nit ku ñi ñi nekk nit tamit xam maanaam boo demee bay waaj a suur noonu la loolu nan lañ ko mën a expliquer waaw. <laughs> waaw ni nga boo xamee ne yaa ngi waaj a suur yaa ngi koy xamee ci li nga li nga lekk bari na. xam nga xelee suur biir du suur xel mooy suur waaye biir du suur. kon xel mi xel mi mooy mooy yëg ni yaa ngi waaj suur. xel mi mooy xam ne. biir biir bi moom du yëg ni yaa ngi waaj biir bi pour mu yëg day jafe. Hmm. parce que doomu dafa doy waar. Hmm. kon boo demee ne yaa ngi yaa ngi waaja hmm. xel mi moo la koy wax. nga bàyyi ngir lan ngir da nga am noyyi gu war a génn ci sa biir pour génn ci biti benn. danga am ndox moo war a jël naan ko ak yeneen yu sew sewaan ya kon boo lekkee ba dem ba xam ne yaa ngi waaj a suur bàyyil moo tax suñu sooy bi ne ko bu lekk mukk te la nga lekkoon reesul mu ne ko bu lekk mukk la nga lekk aussi reesul ne ko bul dox ba sonn hmm? mm-hmm. parce que dox ba sonn itam baaxul dox ba sonn baaxul maanaam koo xam ne foo ko fekk day dox ba sonn day indi gaaw a dee. waaw dox baax na waaye dafa am yamuwaay. parce que lépp maanaam bu mu ëpp daal ëpp. lépp lu ëpp rek loor borom. moo tax boo gisee sëñ bi dafa indi leeral bi dafa wax ne am na ci docteur yu njëkk ya ku ci dénk doomam ne ko boo defee lii ma lay wax doo wopp lu dul wopp dee daanaka nag loolu nag moo di da ko ne bul lekk mukk te la nga lekkan reesul ne ko bul dox ba sonn. na ko bul denc nag jigéen ju màggat. <laughs> waaw loolu moom loolu tamit moom beneen affaire la. jigéen ju màggat xale bu ndaw du ko takk jigéen ju màggat mooy lan mooy ku am fanweeri at denc ku am juróom-ñaar fukki at wala ku denc juróom at. que mi ngi amati ba waaw waaye moom mooy jàngale. loolu day indi gaaw a dee. parce que ñaari deret yi ànduñu day indi gaaw a dee ci ku góor ka sëy boobu moom lay wax mu ne bu fekkee da ngaa bëgg wér-gu-yaram moytul denc jigéen ju màggat bul denc jigéen ju màggat ne ko nag bul balil jaxasoog jigéen balil jaxasoog jigéen mooy lan nga jàpp foofu li mu fi wax mooy rapport sexuel bu bari góor warul balil rapport sexuel bu bari baaxul day indi jafe-jafe ci ci yaram wi da koy gaaw a màggatal da koy indil problème. maanaam feebar da lay indil feebar daal da indil feebar. fu ñu la fekk rek yaa ngi jaxasoog jigéen mooy rapport sexuel ñoom seen i tegge na bari ba tax du duñ leeral loola. te rapport sexuel moo tax mu ne bul bari jaxasoog jigéen lu bari. jaxasoog jigéen lu bari dafay indi gàllankoor ci ku góor kon sëy xamee na sa mu diggu doomu diggu doomu mooy lan mooy semaine bu nekk nga mën caa def ñetti yoon wala ñaari yoon wala benn yoon. manam dal su fekke man nga man nga téye sa bop man nga def ben, bo eh, xawé bëgg def ñaar ñetti dal bu ko bu ko wess waaw ak it ñu la ci guddigi tam nga sey ci ñetti yoon ñu nga sey ci ñaar yoon ben yoon per bis ben guddigu nek bo ci mëne sey ben yoon lo gën ci wër gi xam nga walu wër la ni wax li tax nga am wër waxé su yow ngay def la neex waye li tax nit ki mhm. do nit ko xamante bi manam ku am ak wër la te yag ci wër gi mom lay leral ni mu motax ko moo tax jaxassok jigen hmm, rapport moo te booy jaxasoog itam boy dem bay jaxassok sa sa soxna bul xif di jaxassok mom mom. seigne soy moy wax nee boy dem bay jaxassok soxna si bul bul wóor na xiif nga ba pare ngay jaxassok mom. moom war nga lek ba yegni ni waji sur waaw war naa am lu nekk sa biir bi waaye tamit bu regg ba mu ëpp. war ngaa lekk tamit que daf laa wax ne na nga équilibré jamono ji nga xamante bi yaa ngi dem di jaxasoog soxna si xiifaay bi bu mu am waaye suur këll bi tam bu mu am. parce que lu ci nekk boo xiifee di jaxasoog moom baaxul da indi gaaw a dee soo reggee ba ëpp di jaxasoog moom da indi gaawa a dee kon gis nga ko équilibré. Hmm? ne ko itam bul naan ndox mu sedd ca ginnaaw jaxasoo ba waaw maanaam nit koo xam ne dafa jaxasoo sa soxna ba noppi wëlbit ku génn ca dem ca frigo ba génn ci ndox mu sedd guy naan ba sa dang sëriñ soxna mi ngi koy aaye. mais dama dégg tamit ni bo bo bo maanaam ku def euh, rapport sexuel ba pare naan ndox baax na ci moom. waaye ban ndox. ok waay dëgg la. ndax naanal ndox mu digg doomu bu mu bu mu sedd guy waaye bu na tolloo rek tàng gi sax sama gën ndox moo xam ni jógewut ci frigo ndoxum robinet direct bi moo tane nga jël ndox moo xam ne dafa sedd solution yi loolu lay wax nee na bul naan ndox mu sedd ci ginnaaw jaxasoo ba moom itam ay bis gu nekk moom solution yi mu ngi wax ay bis gu nekk mooy semaine bu nekk na nga fexee nàndulu nandul lan mooy nandul. waaw góor nandulu mooy vider biir bi fexe ba sa biir daw nga toog benn bis boo xamante ni dangay lekk loo xamante bi day dawal biir bi ñam wa nga xamante ne bii reesul mu ànd ak daw ba génn. nandul mooy comme misaalum oto bu ñu vidé comme yow dawalkat nga te am nga oto ba pare <laughs> <laughs> <laughs> kon. vidage boobu nga xam ne oto bi daf koy soxla ci nangami weer yu nekk waaye moom doomu aadama bi semaine bu nekk na ci tànn bis boo xamante bi du génn këram mu fexe ba nandulu waaye nag nandulu nag waxee lu la neex nga nanduloo nandulu dafa am ay sart fii moom gars bu ñuy ba daw mais noo mën a def ba sa biir daw souvent gars dañuy jënd ay meew di naan di bëgg a lâché affaire yooyu mais est ce que dafa am nandal bo xam ci tamit mom la ci serigne bi jubloon. waaw fa laa djem xam nga nandulu nekun num neyake la nexé ngay nandulo parce que bo démé ci nandal bi nga xamni mo gëna dal xel li wax lay dur ak dakar lay doon lay dur ak dakar dakar bi ngepp lay doon lay dur bi kuddu su fekkee sungu si nga am da ngay tangal lu tollu ci litre ndox bu mu tang fekk ji kardi ji ak lay dur bi nga tëj bay bu mu sedd nga segg ko naan ko suba tel non lañu ñuy naandaloo su xam su la wóoree na demo fenn bo de bay dem fenn nak bo sango rek mu di ferme wu waaw parce que tamit tur la waaw lay duur maanaam nandalu boobu amul rangé heure bo demé aajo la manam da nga am aajo juñ la wax te mëno ñàkk dem sa bo toyelé sa yaram rek daal di ferme wu wala nga nan ndox mu sedd mu di am na am na nandulu yoo xamante bi nag boo ko jëlee da nga bëgg mu arrêté te du arrêté te bu waa kër docteur si fekk. kon nandulu waaw mooy def nanduloo nam la neexee. Mm. kon nandulu dafa am ay sart mm. am yoon. moo tax suñu soxna bu ne ay bés gu nekk semaine bu nekk na nga nandulu nandulu mooy jël luy dawloo sa biir waaye ci anam bii mën a ko waxee. ne ko saa soo yëgee ne bëgg ngaa doxi aajo tam moom suñu soxna bu nee na saa boo yëgee ne bëgg ngaa doxi aajo. rëkk waay bu ko téyee bu ci am kersa ni téye ko di ko naj ba keroog dara la ca fekk nee na heure boo yégee ne bëgg ngaa doxi aajoom aajoom mooy lan mooy bëgg a dem gaanawaay mhm. bëgg a ndox nee na bu ñu am kersaak dem ci wanag wa dugg génn fa loola maanaam daal bañ a am kersa dem naa kër alaaji Malick euh, bëgg dugg ci douche bi am kersa war a bëgg a dem gaanuwaay am kersa téye ko nee na loolu mën na laa lor fii day lore boo te dafa am dafa am ay nit ñoo xam dañu am kersa googu. am na ñoo xamante bi bu ñu jóge woon tey jii ndakaaroo dem ci dëkk àll ba def fa juróom-ñaari fan mën nañoo téye seen cabinet ba keroog ñu ñibbisiwaat ci kër gi. loolu li koy indi mooy xam nga doomu aadama lépp xel la nit bu bëggula cabinet du cabinet te loolu nag yàq-yàq ba muy def ci biir bi moo gën a garaaw moo tax mënu la téem saw baaxu ci naq bi. day sos jàngoro ci biir téye cabinet baaxu ci biir bi day sos jàngoro ci biir moom suñu sooy mooy wax. Mm-hmm. mu ne moo tax mu ne ay maanaam saa soo yëgee ne bëgg ngaa doxi aajo wala saw ak lu mën doom dem doxi ko te bañ koo téye daan na nag ngir téye ga nag dana sabab jàngoro yu bari dëgg la mm-hmm. téye googee nga koy téye bañ koo génnee dana sos jàngoro yu bari ci yow mi nga xamante bi yaa ko téye. Mm-hmm. moo xam kersak moo la téye ak lu mën doon waaye loolu boo ko bàyyiwul dana indi feebar ci yow ndax boo xoolee suñ mbokk yi japonais yi dañuy wax ne feebarub dee mi ngi tàmbalee ci biir biir bu jagee nit ki jag bu jagadiwul bu jagadee nag nit ki léppam jagadi doomu aadama biir mooy wér nit ki wér wéradi nit ki wéradi na kon sàmmonteeg biir lu am solo la te te itam biir loo ciy dugal nay loo xam parce que du magasin boo xamante bi lu la neex dugal ci lu la neex génn ca kon settantal ci li ngay dugal sa biir am na solo moo tam sëñ Sonia ba tey mooy wax bu lekk caatu meññet question boobu la yow laa koy laaj caatu meññet mooy lan. caatu meññet euh, nga fekk euh, mango pour man mango bu bu ñoragul nga lekk ko. waaw <laughs> ba tey <laughs> caatu meññet mooy boo xoolee garab yi dafa am ñetti façon garab yoo xamante bi xeeti garab yi bari sax am na bu garab yoo xamante bi danañ ñor rat ñoraat rat ñoraat rat rat mooy ñor ñu récolté mu tàmbali meññaat ñu récolté mu tàmbali meññaat ñu récolté ba ca dernier meññit ba mhm. Mhm. boobu lay wax caatu meññet boobu baaxut te bari waa na ñoo xamante bi ñi ngi lekk meññet moo xam ne caatu meññet la mu sos ci ñoom feebar suñ sooy koy aaye na kon moytul di lekk caatum meññet daal nag bu lekk seel yu wow moom suñ sooy mu ngi koy aaye seel yu mooy lan lan mooy seel seel mooy euh, mooy mooy mooy mooy ay tabaski yi gars yi dañu dagg yàpp yi di ko weer <laughs> boobu moom xam naa ko boobu moom xam naa ko ci Babacar seel loolu nga ko waxee noonu la mbokki cekkeen ni ñooy faral bu tabaski jotee dañuy jël yàpp wi weer ko ci jant wi ba mu wow koŋ ñu wëlbatiku ne di ko lekk loolu dafay indi problème mu biir suñu son mu ngi koy aaye ci téere bi nee bul moytul di lekk seel wow parce que seel wow bu fekkantee rek mën na laa def biir boo xamante ni danga bëgg cabinet mu të ak yeneen ak yeneen waaye moytu ko. suñu soxna ba tey mi ngi wax ne wépp ñam woo xam ne mënee su koo sàqami ba mu mokk bu ko wan wépp ñam woo xamante bi mënee su koo sàqami ba mu mokk bu ko wan wépp ñam woo xamante ni bii mënee su koo sàqami ba mu mokk bu ko wan moom suñu soxna mooy wax nee na wépp ñam woo xamante bi mënee su koo sàqami ba mu mokk bu ko wan ndax lépp loo xamante ni bëñ yi mënu koo mokkal boo ko wannee rek musiba am xoolal yow yëfi nit. yëfi nit la de téere bi moom xam naa yëfi nit rek rek rek moo ci rek wax nga gis ne kon doomu aadama yi kon ndeke kon bëñ bi la ko suñu boroom joxe dagg la ak yëy waaye li nga peese gauche peese ko droite yóbbuwaat gauche yóbbuwaat droite mokkul yàbbil teg suuf. loolu yëfi nit mooy yëfi nit de waaw <laughs> dee sekkee ni nag moom wala gaa yi bëgg affaire yi. di comme né nañ mokul ci gaming nga na bu jalé ci bir mokk <laughs> su ko défé nak boko waraxé warax moy wan mu daal di sos jangoro ci bir ndax estomac ba dang koy indi problème ndax estomac lu mokul lay gawal resal waye bu mokul nga duggal ko ci bir ba nak problème commencé am fofu parce que bu yaggé fofu ben étape bi te estomac bi mënu ko liggéey ba nam mu tass kon fofé bu fa nak da fay sos dara motax mu wax la na lepp lo yang koy sakami mënta mokk rëkk waay bu ko wan boo demee ci mala yi sax dangay gis ñuy yëy dara ba yàgg mënuñu ko sàq mi ñu daal koy yàbbi jéem mala mooy def loolu kon astamaak doomu aadama hmm? daan ne ko nag bul boolee soow ak nen ak jën ci benn jataay nga lekk ko moom suñ sooy mooy wax nee na bul boole soow lekk ñu teg ca nga teg ca nen tegaat ca jën nee na ñett ci benn jataay ci benn waxtu ëpp naa boole. nee na lenn loo ci lekk na nga nëg ba mu rees nga soog a lekkaat la ci des xoolal yëfi nit yooyu. Mhm. léegi kon boo duggee ci xew yi xool togg yi nii nii façon yi nii toggee nga xam ne ñetti éléments yow yow wóor na yow gis nga ko. nga xam ne dañ ko boole ci benn xew. nit ki ba muy jógee këram mu ñëw ak wér bi mu ñëwee ci xew woowu. toog une semaine am ak wéradi lee koy sos moo tax mu ne bul boolee nen soow ak jën di ko lekk ci benn jataay moom suñu son mooy wax yooyu ñetti lenn loo ci lekk bala ngaa lekkaat la ci des na nga ba mu rees moom suñu son mooy wax ne ko nag bala ngaa lekk na nga nekk ba xiif moom suñu son mooy wax ba tey nee na bala ngaa lekkaat dara na nga nekk ba xiif nit aussi du lekk ba suur jógee fa ñu indiwaat ko lekk naka barkeelul mu toppaat te lekk biir bu suuree bàyyil biir bu suuree bàyyil suur nga suur nga suuroo lekkal kon moom mooy wax nee na heure booy lekk ba yëg ne suur nga bu lekkaat tànk la nga lekkan reesul mu ne nag te bala ngaa suur ba tey nee na bu boo demee te bay jëfandikoo at suur boo demee ba lekkaat bay yëg suur ci lekk googu nee ba tey continuer bàyyi gi rek waaw nee na boo demee ba yëg ne tam yaa ngi suur rek waaw nanga nga moytu ndugu maanaam forcé bi <laughs> waaw waaw di di rokkos baatub olof mooy rokkos <laughs> waaw mooy itam boo añee ba noppi boo añee ba noppi donte fanweeri minute la na ko nelaw. dégg nga baaw <laughs> mooy wax nee na nit ki bu añee ba noppi donte fanweeri minute la nanga ko tëdd dallu xoolal ma yooyu yëf nit soo añee ba noppi na nga noppal sa xel mi noppal sa yaram mi donte fanweeri minute la bu mënee ëpp baax na. ne ko nag boo reeree ba noppi itam mu ne boo reeree ba noppi. moom sëñ Souhaïbou nee na boo reeree ba noppi nanga nga doxantu donte ñeen fukki géego la bu fa mënee ëpp itam baax na waaye bu fekkee ne fi nga nekk gan nga fa ba mënoo dox dox bu yaatu ngir ragal la ci aju nee na na mat ñeen fukki jéegoo mooy pas 1 2 ba 40 nga wëddu ko toogaat fi nga toogoon nee na donte ñeen fukki jéego la boo reeree ba suur na nga def noonu waaw ne ko nag booy nelaw ci après gaay moom sëñ sooy mooy wax nee na boo nelawee boo fekkee ne da ngaa reer ba suur te mënoo doxantu lu gëmmel daa jàpp nga bëgg tëdd noonu ci ab reggaay reggaay mooy nga tëdd ci ab suuraay te mënoo ñàkk tëdd nga wóor na yow da ngaa te mënoo ñàkk nelaw ci reggaay bi na nga tëddee sa wetuk càmmoñ wetuk càmmoñ mooy wetuk goose boo xoolee côté côté gauche bi mooy gaaw a reesal ñam côté waaw moo tax mu ne la jamono ji nga xam ne da lekk ba suur te mënoo doxantu amoo fenn foo mën a dem te gëmmentu nga rikk booy tëdd na nga tëddee keroog càmmooñ bi. côté gauche bi mooy tax ñam mi gaaw a rees nga xam ne kon guddi googu doo ci am ak loraange ndax bariwaane bu biir feesee nga boole ko ki nelaw mën naa la lu bari mën na laa daaneel ci guddi gi te bu waaye mën naa doon ayib joo xamante bi dina nekk mbetteel ci yow lu xeeti asma la ci aju. mu ne bu fekkee ne tam mënoo tëddee wetuk càmmooñ nee na na nga jaaxaan ci nelaw yi jaaxaan def naa ñu bari xam nañ ko su ko defee jaaxaan googu itam dina yombalal rees gi bu fekkee ne wóor na la da ngaa regg di nelaw mënoo tuddee wetuk càmm nee na kon na nga jaaxaan di nelaw hmm? loolu loolu dina tax nag ñam wa gaaw a rees moom suñ soo mooy wax nee nañ loola dina tax ñam wa gaaw a rees moom itam bala ngaa tëdd nanga gaarul sa bopp ca wanag wa ba xam gaarul xam nga ko. xool ba xam yittewoo nga ko wala yittewoo. <laughs> ok waaw bala ngaa tëdd na nga gaarul sa bopp ba xam bëgg ngaa dem ca wanag wa wala déet ne ko bala ngaa nekko tam sëñ soo mi nee na boo duggee ci wanag itam bul yàggal sa bopp ci jotaay ci maanaam. jataay wanag bu ci la yàggal sa bopp maanaam bul dugg ci wanag wi moo xam dangay ngay sangu moo xam da ngay cabinet loo cay def yitte jën a gaaw ba nga gaaw génn naat moom suñ sooy ma wax nee na yàggal sab jataay ci wanag day sos jàngoro kajoor nit koo xamante bi bari na koo xamante bi tey jii boo xëyee na ko demal dugg ci wanag wi gaaw ñu dem dana fa def waxtu te xamul ne danger la ci moom am na ñu muy def am na ñu muy def waaw am na ñoo xamante bi fanweeri minute duñ ko def ci kii maanaam da mujj sax di fëgg te duy teggin am na ñoo xam ne da ngay toog ba xaddi mujj yow da ngay dem sëlmu daal di mujj xëy bàyyi leen ci wana wa ñu nekk ca rek te du buñ génnee gën a ñaaw bukki hmm? kon yàggaay bu nag day sos jàngoroy kajoor Cheikh Souhaïbou bi moo ko wax moo tax boo demee boo demee ci ñenn ñi dañ lay wax ne la nit ki nga xamante ni dafa ëpp ay àndandoo foo ko fekk day bëgg ndox boo demee ci yenn borom xam-xam yi dañuy wax ne nit ki nga xamante bi jigéen pour nga xam ne am na àndandoo foo ko fekk bu duggee ci wanag balaa génn rek day yàgg ndax xeet ñi nga xam ne dañuy bëgg wéet ak bëgg duus ñu ci bari dañ leen wax ne day dañoo am ay dendandoo dendandoo mooy ay xeeti àndandoo ay rab ak la ci aju moo tax kon di invité di yàgg ci duus ndax cangaay yaram moom lu mu yàgg yàgg yàgg waroo koo mën a passé quinze minutes bu dee sangu rek la itteel kon nag nit bàyyil xel ne ndeke yàgg ci duus am na danger bu muy def ci yaramu nit ki. sëriñ Sonia bu nag nee na lépp lu ñu ne bàyyi ko dana tax gudd fan lépp lu ñu ne bàyyi ko dana tax gudd fan te bàyyi ga du biddaa nee na na nga ko bàyyi. mom seigne soxna mooy wax neena lepp lo xamne xam ne ga dana tax gudd fan te bàyyi ga du bida te bàyyi ga du bida na ko bayyi mom seigne soxna may wax. mu dal di ñëwee nag ci ndenkanam mu ne ku am biru biir bu daw. kon fim mu toll da nga andi ci ndenkanay ñu fatali rek El malik tay li ngay waxtane dafa am solo trop Manam émission bi. tay dañu jël ben euh téré mak mo xam ci Serigne Chouaïbou moo ko def mu jëm ci walu fajj tuddu khuratul ayni mom lañuy waxtane motax sax ngeen gis ni émission bi amé solo tay gëna amé solo sax lañuy wax ndax daana am solo waye tay Raaj malik dafa indi ben téré bo xamni ci ben mak ci l'islam moko bind muy Serigne euh gannaaw liñ fi wax yëpp te waxi nit la rek ah tey moom yaakaar naa émission bi sax dafa gën a nekk dafa alaa daw mi ah ci téere bi ndax lépp li mu wax rek yëfu nit la ah te nit ñi tamit yaakaar naa ñu ngi ciy bàyyi xel aj Malick euh, gannaaw loolu dangay ñëw ci ndénkaane yi nga xam si tamit wax na ko dénkaane na waaw léegi ñu ñëw ci tegtal yi nga xam ne moom lay jox nit ki bu amee jafe-jafe gis nga dafa wax ne ki nga xam ne dafa am biir buy daw am na ñoo xam ne bu amee biir buy daw seen xel yëpp mooy dem hôpital dëgg la baax na am na mu suñu soñ bu joxé ci ko xam biram day daw da wax né na baxal ab nen ci bineegar na jël am nen baxal ko ci bineegar tay ji bo doon baxal nen ci bineegar so amé lu tollu ci ñaari kaas man nga ko ci baxal ndax liñu soxla ci ba lay baxal nen moy na mur ndox mëna mur nen ba lepp lu mëna mur nen ba rek mëna ca bax su sa ñoree nag nga bàyyi ba mu sedd nga toj ko suñ sooy mooy wax nee na boo baxalee nen bi ci vinaigre ba mu ñor nga génne ñor euh, nen bi teg ko ba mu sedd nga daal di lekk pëndëx ba bàyyi lu weex la maanaam pëndëx ba mooy pëndëf ba mooy mooy mooy lu jaune la bàyyi lu weex la nee na soo ko tegalee ñett yoon ci bis bi biir boobee dina arrêté xoolal ma loolu. vinaigre ak nen. pas 500. waaw nga xam ne tey jii ñaar téeméer boo ko amoon yaakaar naa ne loolu yooyu daal di mën a jàppandi. Hmm? Mhm. moo joxe takkal bi mu ne biiru tañ nag. mais El Hadj Malick biiru tañ mooy lan. waaw euh, xam nga biiru tañ mooy biir boo xam ne maanaam euh, nit ki li muy génne day metti ba paré di génné lu lu mel lu lu wéx lu wéx lay lay génné hein ah. ba nopi euh bo xolé tam da koy yabal lu baré baré baré baré lolou lañu ñuy buyu biiru nga xamné ne bokkul ak bir buy daw. ok bokkul ak bir buy daw nga xamné nit ki da koy sonal dal wayé buy dem cabinet day metti ba paré muy jaabante jaabante bu bari té bo xolé li génné lu tout lay doon ba paré doo ko mën a ay cabinet kon lolou lañu lolou la soñ bo bu wax biiru biiru tañ moo tax mu ne mu ut meew nag waaye da koy tàngal nag bu utee meew bi nag bi da koy tàngal ba mu tàng mu ut kaasu verre sotti ko ci ba mu fees mu daal koy naan bu ko naanee nag mu daal di sangu loolu tegtal boobu Cheikh Souhaïbou bu moo ko moo ko wax mu ñëw nag ne ku seere seere moom olof yépp ko xam nee nag ku seere na wut meewu xar jamono ji nag meewum xar xam naa du yomb defe na xar xar ci boppam nga gën a jafe. waaw waaw <laughs> meew xar def ca xorom tuuti daal koy sooyal mooy seeyal mu daal koy naan suñu sooy bi loolu la joxe mu ne képp koo xamante bi da ngaa seere na wut meewu xar def ca xorom tuuti yëngal ko daal koy naan mu daal dañ nee nag kuy buri xam nga buri. bori. mooy képp koo xamante ne bii bakkan yi day faral di génne deret yu bari bari na ñu muy dal nee na bu fekkee ne yàlla dafa atte am ku muy dal te dal ba la nam koy dalee mu tegaloo nee na na nga sotti ndox mu sedd fii ci doq gi di ko ko sottil ndox mu sedd comme tey jii ndox moomee ñu la aay woon ci booy jaxasoo sa soxna ci gannaaw jaxasoo ba nga di ko naan kon fii la baax nga dëpp ñu ñu sotti la ko ci te boo paree nga jaaxaan ñu sotti ko fii mooy doq waaye soo paree tam dangay jaaxaan soo ko defee bu yàggee dana daa deñ kuy bori nee na ku soj soj te muy lu bari ci jamono jii kooku foo fekk rek nit ñaa ngi tisseeli ñandu lu nekk sëñ son mi ngi ci joxe solution mu ne kuy soj nay suuroo xol yi laaj moom sëñ son mooy wax nee na ku soj na nga ut xollitu laaj def ko ci ànd di ko boy booy nga ubbi sa gémmiñ gi pour mën cee nga mën cee saraxndiku kon suñu sooy bu nee na képp koo xam ne soj na na ngay suuroo xollitu laaj da am jafe-jafe bëñ yuy metti te bëgg mu arrêté nee na nga ut na nga ut na ngay suuroo te kooraay moom la wax doomi doomu witeen mooy kooraay doom yooyee nee na soo ko dee def ci ay xal di ko suuroo dana faj metti du bëñ wala bu fekkee ne amul loolu na ut fuddën ak lem jaxase ko def ko ca ca bëñ ba fuddën ak lem bati ko jaxase ko def ko ca bëñ bay metti bu dee bëñu dëgëj ba mu toqal ko ca nee na loolee dina ko faj moom suñu soñ boo ko wax wala nga jël vinaigre boole ko xorom vinaigre ak xorom lu mel ni kaasu ataaya nga natt ko ci vinaigre ba mu digg nga jël ñaari donju xorom def ca sooyal di ko galaxndiku téye ko lu yàgg soo ko suba midi ngon soo ko def bon boobee dana la di arrêté moom suñ sooy mooy wax <coughs> suñ sooy mi nag ba tey mu ñëwaat ci mu ne buub nit ku nekk war na koy moytandiku buub guddi suñ mbokki jigéen yi dàq ñoo ko fi dàq ñoom jàpp na ne tilim baaxul ci kër amut waxtu wu ñuy bale ak wu ñu dul bale suñu son bi nag dafa wax ne buub guddi mooy bale guddi surtout nga bale guddi ba pare feggal ko feggal mooy bàyyi ko fa mu fanaan du bët set moom mu ngi koy aaye bàyyi mbuubit guddi ci sam néeg mooy sëñ son tam mi ngi wax ne nit warut di lekk ba noppi di raxasoo suuf xam naa loolu sax bareetut waaye comme wax la rek nan leeral lépp nit ñi daal xamee ko ni baaxut xamee ne baaxut ndax am na lu muy indi ci doomu aadama bi lekk ba pare amoo raxasu ngay raxasoo suuf nit ñi ba nekkee ci daara ja daal leen ko def waaye xamuñu woon ne baaxut man mii def naa ko waaye suñu soñ bi dafa wax ne ëpp naa lekk ba noppi jàpp suuf di ko raxasoo wala nga di ko fomp sa loxo ci ay ay ay miir rek ban ay ay ay garab ak yooyu. ma am am na tamit loo xam si dañ daan gis ni dañ ko daan tere te mën naa wax ni léegi dafa bëri muy ay génn timis euh, euh, dañ ko daan gis daal surtout ci xale yi naan bàyyil ba timis gi paase ak yooyu loolu tamit euh, est-ce que nekkul ay gàllankoor. waaw jërëjëf bu dee ci wàllu timis buñ ci ñëwee ku ñu wax imaam maanaam imaam arli yu rilwanullahi alayhi nee na jëleef na ci ibnu xatibata mu wax ne dafa amoon waaju bokk ci banni tamim banni tamim lii maa ngi ko jëlee ci téere bu ñuy wax saadul muslim bu sëñ ahmadu daam ture ci laa ko karafatee moom moo wax loolu mu ne jëleef na ci ibnu xatibata mu wax ne dafa amoon waa ju bokk ci bànni tamim bànni tamim giir la lu ñuy wax giir mi ngi mel ne ñu naan la askanu lawbe askanu nangam waaw bànni tamim hmm? am ca ku ca amoon doom ju góor ju toll ci waxambaane waxambaane su ndaw am koo xam ne dafa amoon doom ju góor ju toll ci waxambaane su ndaw am bis muy fo ak i moroomam ci waxtu yu jant bi di toll ci sox mooy diggante timis ne jenn jenn jinne daal di koy sadd mu daal di daanu baay ba ne ko hee moom baay ba ne ko hee loo joteeg sama doom ji ba def ko nii ne mu tontu ko ne ko ci làmmiñam wu set moom jinne ja ne ko maa tey def ko nii ndax waxtu wii la julli te xayrul mursalina muhammadul mustafa sallallahu alayhi wa sallam wax na ne xifsu sibyaanakum inda qurubil samsi moo di na ngeen di wattu seeni gone waxtu wi jant bi di so ne mu ne ko waaw li nga wax dëgg la waaye génneel ba set ci sama doom ci kattanug laa xaw la wala quwwata illa billahi nee mu daldi yuuxu te naan wooy lakk nga ma wooy lakk nga ma fa sensé xale ba daldi di ximmiliku ne fojjat taxaw mel ni dara mus koo jot kon loolu xaddis la boo gisee ñu naan la moytu leen waxtu timis jinne yi ñoom ñoo waxan lii kii te dafa amoon doomam ju góor joo xamante maanaam ca waxtu woowee la ko saddan mu yëg loolu nag ñëw taxaw na ko loo yoteeg sama doom ji ba di ko sadd mu tont moom jinne ji tontu ko ne ko maa tey. kon waxtu wi xale ba génnoon moo baaxul. waaw ok moo tax boo diggee maa ngi di aaye timis timis dafay bari jinne yu ciy génn waaye nag ndekkat jinne yi kon ñu ngi ragal laa xaw la wala xuwata ilaa billaay ñoom da leen di lakk baat boobu kon boo ko dee répété ñaare bu fekkee ne da nga am tooke ju ju sadd sa doom. wala tooke ju la dugg soo ko dee répété rek loolee da leen di lakk caas la ak xal kon foofu ñi ngi jëlee loolu ci téere bu ñuy wax saadul muslim sëriñ ahmadul daam Touré moo ko bind am na solo alaaji Malick xam naa nag téere sëriñ Chouaïbou bi eh, liñ ci bëgg a indi yëpp yëpp beneen uh-huh. bariwaane jigéen joo xamante bi buy yëlëb lal te boo demee ci téeral xottu ay ni suñu son bi mu ngi ko ci aaye buy yëlëb lal bi ngi tëdd au lieu que mu yëlëb maanaam na sempet rab bi yëlëb ko day dangay gis mu jël sërëm di ko faxasee suñu soñ mi koy ayee te loolu jàng naa ci benn borom xam-xam ne jigéen bépp jigéen bu koy def ne moo ko wax nee jëpp bépp jigéen boo xam ne yaa ngi koy def day oyofal sa sër oyofal sër nag mooy ku la soxla rek ànd ak yow kon nanuy moytu jigéen ñi nanuy moytu ko sër di ko yëlëbee lal boo demee ci khodra ay ba tey dañ caa àggul ndax téere bi dafa yaatu te fas leen ko topp ba mu jeex ndax léppi tegtal ak léppi njariñ ñun suñu suñu njariñ la waaye njariñu askan wi la kon na ni moytu ko di faxasee sér ci lal ba ngay fanaan ndax day oyofal sérub jigéen kon daal defe ne li nga bëgg wax bisimilah. am solo alaaj Malik, euh, xam naa damay ñëwaat ci téere bi euh, tey dañ gis ñu bëree bëri ñoo xam ne si ñi ngi faj mais mag mu mel bind lu melni ci wàllu faj tey lan moo waral andi euh, téere bi ci li nga xam si moom moo di nit ku nite ndax bari na ñoo xam si xëy na mën nañ gis xam-xam surtout xam ni am na njariñ mais pour ñu laayante ko biir wala wax ko nit ñi day xaw a jafe lan ma waral El Hadj tey jël téere bi spécial ñu def ci ci émission te wax nga ko di nga indiwaat yeneen loo xam si ay tegtal la waaye lu baax la loo xam si Serigne Choy yi bu dugal na ko lan ma waral nga andi ko ci émission nit ku nite. jërëjëf Alioune xam nga ñun dañoo bokk ci kër Serigne man suma waxtane wut suñu soñ bu la war ndax samay nijaay no sën ci suñu soñ bu rikk wax muud aw bala sek ak kenu sek suñu soñ bëgg leen bopam lool nga xamne do no bokkon ci kër ga ñun ñi di talibé suñu soñ bu di talibé ci Ahmadou Mbacké di khalifa li ñuy yëng yalla àtte ñu man ko kon mu ñu jëggaani benen téré bu dut bosom te li mu wax amul kenn ku ko mas a wax ci lu leeree nii boo demee ci docteur yi sax d'accord na na ci lekk ba suur baaxu ci biir sëñ soñ bi nag ba mu ko waxee léegi kenn xamul ñaata at la xoolal sëñ soñ bu taxaw di naan am na benn docteur bu nekk Amérique da wax ne nit ki nga xam ne dafay taxaw di naan saa bu paree ci naan ba rek bu toogee cinq minutes day taxaw day day day yàkkamtee saw yi pourquoi loolu nee na raccord bi nga xamante bii bu taxawee raccord bi direct lay doon parce que boo xoolee butitu doomu aadama bu toogee bu ndox mi to bu tey boo toogee di naan booy naan mais bu fekkee da ngaa taxaw di naan benn raccord ngay am te def dafay def direct nga xam ne booy pare ci naan ba rek cinq am dem sawi suñu sooy bu mu ko ayeeg léegi kenn xamul ñaata at la. ñi ci téere bo waaw mu ne boo demee bay naan na nga jekki jekki mooy toog nga naan ba pare jóg te loolu kat day gudd fan kon docteur yi kol bi ñu ko commencé dugal taxaw di naan. am na benn docteur boo xam ne américain la du ñàkk benn bis dinaa indi tur wi ndax maa ngi gëstu ci yu mel noonu waaye ñun li waral ñuy topp téereem bii Serigne bu doomu Serigne Touba la di nit ku nitu sariyaan di nit ku set waaye di nit ku bëgg ku wér ndax nit mënta jaamu yàlla te wérut doomu aadama bu mu mën doon pour nga jaamu yàlla faw nga wér moo tax nag mu sonn ci nu nit di wéree moo tax gis nga ko fa mu tàmbalee waxtaan wi bokkut ne liy sabab gudd fan ak wér-gu-yaram noonu la tàmbalee waxtaan wi kon téere bi nag ab door la xañ na dinañ ko àggale waaye daal ñu fas yéene ko àggale toppaat yeneen téere yu mag yu ñu xam yu wax ci lu mel nii ñu topp ko ngir lan leeral askan wi rek ndax ñoom bëgguñu askan wi leen réer ndax ki def yitte jii kon ñun lan la war a def ñoom ñu jël seen dund gépp jël seen xalima topp ko baat par baat luy jariñ nit ñu toog ak nit ñu ñàkkee jot ak seenu jaamu yàlla ba bind téere bi tool nii nga xamante bi lii maa ko copié ca téere ba nga xam ne ëpp na lii kon ñooñee bu ñu defee di ñun lan lan war a def kon daal lii bokk na ci li tax te ñu indi xuratul ayni waxtaane askan yi pour nit ñi dégg xuratu ay ni xam suñu soin bu lan la def ci xuratu ay ni ak lan la ci wax. teewul tamit dinañ ñëwaat ci àll ba ak. Ah. nan nañ ko laa ah, defee macha allah teewul dinañ ñëwaat ci yooyu yëpp macha allah. am na solo kon El Hadj Malick Guèye ah, moom lañ àndaloon ci émission nit ku nite El Hadj ñu ngi lay gërëm bu baax a baax xam naa mbokk yi tamit. ñu ngi leen di gërëm ñoom tamit ci ànd bi ñuy ànd ak euh, seen site bopp info réew mi point com ci seen émission bii di nit ku nite gërëm nañ leen de mbokk yi ah commentaire yi incha allah wax naa leen ko dinaa ci ñëw ci émission ndax El Hadj Malick bari na ñoo xam si dañuy def seen commentaire indi seen i question émission spéciale lañ koy indil El Hadj tontu ci laaj yi ngeen laaj yëpp ñu euh, demaan ak yéen ci yeneen émission jaa ngeen jëf mbokk yi ci ànd beek info réew mi point com gërëm nañ Babacar Ndiaye ak Tara mi nga xam si ñoom lañ àndaloon ci liggéey bi euh, di leen joxaat dig daje incha allah ci beneen émission ci nit ak El Hadji jaa ngeen jëf mbokk yi